di siyaar bu baax a baax yéen ñi fekk ci jotaay bi muy waa presse bi yàlla dogal tey ma woowoon leen ngir ñu waxtaan ci fi réew mi toll man la si Abdou Lahad Mbacké ndula ñu gën maa xam si Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Cheikhouna Mbacké moom sëriñ Sam Ndoulo di yëngu nag ci social waaye àndoon nag nag eh, ñi fi nekk muy président waaw àndoon ak ñoom laay wax sax ndax àndatuma ak ñoom actuellement nii. léegi président moom ku ne xam na ne moom président Macky Sall bi mu faloo ak léegi. coow rek moo moo am ci réew mi ndax li ko waral mooy euh, yàlla dogal na bi muy bëgg réew mi ñëpp dañ ko dañ ko dañ dañoo amoon ci moom yaakaar ba fal ko comme ma man koo bref dañ ñëpp dañoo amoon ci moom yaakaar ba fal ko ndax lim diggee woon ak programme bi mu tegoon ngir bu jotee soppi réew mi euh, yàlla dogal bi mu ko jotee ku ne xam ne dafa jot réew mi rek problème yi commencé ñu commencé jàpp nit ñi jàpp Karim Wade bref jàpp Khalifa sàll mu jur coow mu continuer waxoon na it ne premier mandat lay def bi loolu jàllee defut première mandat gis nga ko 2015 mu def mu def référendum wax ne day def deuxième mandat fexe ban def euh, oui ak non boo xam ne Touba moom teel naa wax ne boobu ma ndax li xew tey jii bokk na ci ma dugal ko ci bala ma koo fàtte li xew vote yi ñu vote ngir wane ne ku woote rek ngir euh, manifestation manifestation terroriste la ñu ne loolu amoon na bu yàgg ci élection yi lañ ko oui ak non lañ ko référendum ba lañ ko lañ ko dugaloon ndax li tax ñu dugal ko mooy du lii dong lépp loo xam ne rek lu doy waar la euh, ci loo xam ne méngoowut ak réew mi dugal nañ ko ci référendum bi kon waa baa moom teeloon nañoo bañ ca lañ bañoon moo commencé waat nii ndax gis nga ko nee nañ ko dajale ko dajale nit ñi terroriste la bu loolu jàllee moom ci boppam moom Macky Sall ci boppam bi mu tëjee Khalifa Sall ne benn mandat lay def defut benn mandat def ñaari mandat wi ak noo bett Sénégalais yëpp ku ne xam na ne mi ngi jëm ci troisième mandat ci lañ ci lañ jëm ca ca ñoo ngi ca ñoo ngi koy xaar problème yi am mu jàpp Karim jàpp Khalifa def wi euh, ak daal di na daal di jàll def deuxième mandat coow li continuer deuxième mandat gis nga élection maire yi nga wax nii 2019 lañ ko waroon a def mu yokk ci ñaari at ca loolu teguut fenn dafa dafa war a respecter sàtt réew mi. kilifa buñ la déggee dénkee surtout président liñ la dink da nga koo war a sàmm waaye waroo ko yàq ku ne xam na ne 2019 la ñu waroon def élection maire yi mu bàyyi ñaari at di ko doog a def jekki-jekki rek ne nañ ko def san janvier 2022 loolu mooy waaj na ca loolu it euh, ñoo ngi koy xaar ci législative yi ñoo ngi koy xaar ci élection maire yi di ko xaar ci législative yi ngir ñu man koo baatar Sénégal yëpp jëli seen i carte man koo duma duma yu métti mu dem tëri ngir xelam du mën a dem ci deux mille dix neuf euh, deux mille vingt trois waaye bu gañee élection maire yi ca mënu koo gañe gañe yee gañe élection législative yi Sénégal yi maa ngi leen di wax ne dangeen ngeen wiccax seen loxo ndax dina wax pris pris dina wax euh, troisième mandat ca loolu sax moom kenn du ko ci xaar ndax ku ne xam na ne Sénégal yi dañ cee pare ndax la mu waxoon lépp defu ko bu loolu jàllee kon coow yi am gis nga ko euh, Sonko jaar muy coow loo xam ne gis nga réew mi ni ni li ci xew ni nit ñi yàqule ak bruit bi mu am loolu it ma xam ma xamal ne le tooñ nañ koo xam ne kat man sax euh, tooñ laa ko mën a tuddee ndax ku doon liggéey la ñu dàq ko yàlla dogal sénégalais yi fal ko mu doon député muy Sonko lii xew nag moom du ma ci sori ndax mbirum massage ak ñàkk massage moom loolu euh, duma ci sori loolu moom dama ci mënta sori ci ci ci ci doomi soxna ndax amaluma njariñ waaye li fi jot a jaar daal mooy ñu dàq ko ñu falaat ko mu doon député loolu waroon naa tax mu xam boppam ba lii xaañ na bu dee am na mu bañ ko mu waroon a bañ a demee noonu ndax mënoon naa demee neneen di wax ne it gis nga fi bi mu jugee Fatick la xew ñu yuuxoo ko mu dem fuuta foofa moom fa la yaakaar ne moo ko moom gis ngeen fuuta tàmpi jug ak ñeneen ak ñeneen ñu yuuxoo ko danoon natt boppam waaye fi mu jot a dem bépp ci tournée économique bi day wane ne dafa laj ca Sénégal yi dañ ko mere pour war nañoo xam ne moom président ci boppam gis nga fi mu jot a jaar yëpp ci élection ne ne ne day def tournée économique xoolal bawal ni mu ko jegee ak bawal li mu représenté ci réew mi ñëw fi ndax amut lu mu fi def waxuma la tuubaa boo waxee ñuy euh, maanaam lay Touba ne def nañu fa hôpital boo xam ne niveau 3 la xaw ma niveau de ca pareegut ca loolu rek la fi mas a def assainissement bi saa moom rek la ñu mën a dimbalee ca mosu ko fee def courant bi yokku ci dara chaque année ñu defi tappale ne yokku nañ ay poto ca yópp yokkuñu ko man def naa enquête bi loolu lépp am defut loolu kon état ci boppam moom si jëmi bopp nag nañu dimbali occupé maam ñu def dëkk bi découpage mu defaral ñu suñu assainissement ngir nañ ko bëggee ñu amee ko noonu muy tuubaa nit ñi nekk ci assainissement bu baax ndax loolu état moom moo ko war a def ndax Touba ngi dugal lu toll noonu ci réew mi kon nañ ñu dimbali nag ginnaaw ñun duñ laaj murid yi li ci ëpp ñoo koy defal seen bopp lépp sax ñoo koy defal seen bopp xam ne nag état koy def moom cam doon waru garam muy assainissement ak ay yoon ak ay lamp ak fajukaay nañu ko defal ca def ko ci département bi Touba nag na ko leer ne ki fi nekk ki ko fi nekkal wala mu wax ne moo ko fi nekkal nga xam ne benn conseil la ñu la ñu la ñu fal la la fi def ca conseil sax mën naa ko ñàkk tuddee conseil du dara muy Cheikh Abdou Mbacké Gaynde Fatma nga xam ne ñun keroog bi nga xamee ne président lañ àndal di ko liggéeyal ngir mu mën a dimbali suñuy gox ci principe yooyu yëpp la ñu àndewoon ak moom ndax seet si na ma gisee nañ ñaari yoon moom président ñëw nandu la ñëw Touba ca yooyu yëpp maa ko recevoir yóbbu ko ci samay kilifa. loolu lépp accord yi ma àndoon ak moom mooy ngir yóbbul talibe yi yitte woon ndax ak ay fajukaay man loolu taxoon ma ànd ak ñoom man ci social lay dund waaye politique rek ak bëgg loo am soxaluma man. damay liggéeyal Serigne Touba jaamu saa borom ci moroom sama moroomi jaam yi dëkk yi ma daan dem yëpp nag depuis fukki at saa su nawet bi jàllee may defi tournée di ci gërëm sama waajur mu digaloon ma ko di lu war ab sëriñ xool mbokki taalibe yi saa bu nawet bi wàccee ñaanal leen nemmiku leen xool mbokk yi loolu ma ko daan def fukki at ba ni ma ko daan def taalibe yépp ñi ci ëpp di taalibe kër gi waaye ñi ci ëpp di sénégalais ak murid yëpp ba ci waa kër waa kër gu ne ndax euh, dëkk boo dem euh, dina am ñeneen ñu fa dëkki murit boo demee dina am dëkk tijaan bu mu dendal boo xam ne wala beneen dëkk xaadir wala boo xam ne dañuy sàkku nga jaar fa sama taalibe yi du ma ne suñ mbokk sama sama mbokki taalibe yëpp ma bokkal sëriñ bi yàlla dogal ñu ci bëri bëri ma fexe woon ñu gañeel Macky Sall ngir ne leen bu gañee sama xarit la ñëw na du la seet si ma bu gañee dina leen defal ay yoon ak ay fajukaay loolu lépp amul defuñu ko boobu ba léegi damay bañ na nag ngeen yaakaar ne lañ ma waxoon def nañ ko ca defuñu la defuñu ko ca yéen a leen voteeloon bokk ngeen ci ñi leen voteel kon maa ngi leen di wax ne élection mairie yii bu leen woteel président Macky Sall bu leen ko woteel législative yi bu leen ko woteel comme Sénégal yëpp ni ñu ni ma waxee ne nañ ko defee noonu di ko sàkku ci ñoom ngir ñu soppi suñu réew loolu laa gis. lu am lo loolu laa gis ne mooy jëriñ réew mi ca it moo moo baax ci réew mi. mënuma ko tuddee wor waaye mën naa ko tuddee wor wor sax la gën a jege ndax dañoo waxtaanoon waxtaan ak ay nitam yoo xam ne. bu gañee ngir ñu defal waa gox yi ni ma ko waxee loolu du man dong loolu Sénégal yëpp ci war a roy ku mën a wax rek ci wax yi wu rafet wala nga defi pexe ba mën a jariñ sa gox nañ koy def ndax gis nañ ne loolu dafa am njariñ man du sama intérêt personnel waaye sañ na maa def ay activité wala may am ay nit ñoo xam ne war naa leen dimbali war na maa eh, wax seeni seeni seeni tawat war koo wax fa ma ko war a waxee ñu dimbali leen looloo ma ci dugal waaye du mer bu ma dee mer li may mer mooy ñañ ma waxoon ña ma waxoon ñu voté leen di kilifa nga xam ne wàllum social laa àndee woon ak ñoom ak en tant que mbokkum taalibe muy seeti seen mbokku taalibe chaque année loolu laa àndee woon ak ñoom ba bëgg leen a dimbale ngir président bu faloo buñ ko voté lee mu dimbali leen loolu defu ko loolu it wóorub dëkk yooyu donc ndax Sénégal gépp la war ca ku ne xam na ne Sénégal moom Macky Sall actuellement nii daanaka lim fi def mënoo cee teg loxo amul lenn lu mu fi def lu dul coow ba mu démarré ba léegi. Mm, xëyum ndaw ñi Sénégal ci boppam bi dañoo mus a farataal am xëy. te mooy dëkk boo xam ne euh, bu dee téeméer a fi yeewoo juróom-benn fukk yaak nangam yëpp ay xale lañ kon am nañ yoon wu ñu saa borom may ngir buñ defaree nit ñooñu ndaw ñooñu ñu mën a développer réew mi ku ne gis na ne senegal li fi nekk ci suuf kenn xamul nu mu toll ca réew suuf la soxla jeune ndox fleuve baa ngi nii mënoon naa dem ci régions yi yëpp bu ñu ko jaaree fi ko war a jaar du liggéey bu ndaw nag waaye da ko war a jaral ndax day doon loo xam ne lu mu diis diis bu jàllee Sénégal yi seen bopp ca duñ ci dellu si luy continuer la. loolu la état war a liggéey yooyu la war a xool yàlla dogal na nag comme que defut loolu jeunes yi liggéeyul Sénégal 16 millions d'habitants la du benn région rek la ñu war a dimbali naan def na fa dara dañoo war a teg programme yoo xam ne en tant que état politique bi da koo war a dajale ci région yëpp yëpp am ko mooy emploi des jeunes mu créé ko ci région yëpp ku ne xam na ne li doon maye xëy yëpp signé nañ koy contrat jaay ko mu dem loolu ñu sonal ndax booy xool gis nga pes bi un million ci liggéeykat la amoon boo xoolee ñuy bootu seen ginnaaw kon borom kër bu ne war naa ma 3 millions pes bi moo doonoon li nga xam ne sénégalais yi bokk na ci li leen doon créer emploi ñu yàq ko jën yi gis nga jën yu baax yëpp jaay nañ ko jën yu baax yëpp jaay nañ ko nga dikk ci jur gi betaay bi cher kon caaxaane nañ pes bi mënoon ci am ay liggéeykat yu yu yu romb parce que 3 millions wala 2 millions ñu caaxaanee ko mbay mi gis nga ko Sénégal ami jeune am àll kër yi xotti yoon yi wala ñu xotti fleuve bi ndox mi demaat duggaat Sénégal ci région yëpp ñu xëccaat ay forage topp ko département par département commune par commune fépp am ñu créer leen commune bu ne ñu fexe ba def fa bërëb yoo xam ne ñu leen di euh, tàggat la ci wàllum bay ndax Sénégal dañ leen a dimbaliwut waaye bay mi sori nañ ci lool waaye dañ leen a dimbaliwut gis nga ko tabaski gaa ngi ñëw waa Gànjool ak waa Potou ak waa euh, nu ñu koy waxee di mboor gi ñoo ngi wax ne seen pompiteer beeg seen euh, soble beeg yépp a ngi yàqu ndax amuñu chambre froide mu dal ñu ci meew mi gis nga jur gi meew mi sàmm yi ku ne xam ne ne chambre froide lañ lañ lañ ñàkk nga xam ne ñu li gën a baax ci meew lañ am mooy naturel bi ca gis nga ko tubaab yi koy jëndaat di ñu nax di daanaka sax yóbbu ko yi ci desee yi fi nes nii ñu tuddee ko meew ñu ker ñu keryal ñu ci ñam bi mu doon meew ñu ñu koy jaayat xaalis bu cher ñu perte yooyu yëpp ci ci ci wàllum emploi si bëgg it sénégalais yi bàyyi bàyyi bu président defee dara ñu war a def junni def ci téeméer ñu lay sant loolu du waru gar du waruñu ko sant li ñu ko war a santee mooy lam ñu waxoon mu def ko ba dolli ñu waaye lam ñu waxoon defu ci dara def ci lu néew ñu koy sant loola la waral buy dem ay es ay garde topp ko ñu jox ko suñ palais bii jëndal ko avion boo xam ne bërki démboo njaay ku ne xam na ne 50 milliards la ci def ca waroon a def lu gën a farata loolu ku ne xam na ne manqué nañ ay hôpital manqué ay poste de santé yu baax sax ak case de santé amuñu ko dara amuñu ko ci wàllum fajukaay ci régions yëpp nga jël 50 milliards di ko def ci da war a am avion pare da war a tukki ca ku ne xam na ne gis nga buuru euh, Maroc bi Royal Air Maroc lay tukkee day def fi mu ci am présidentiel bi mu ci am passage bi de lay tukkee bu waree dem nag ndax li muy tukki bëriwul moo ko war a dal moom mi toog tal réew mi waaye fu mu toll di dem kee bu waree dem dañuy jël air première classe diggante bi nga xam ne fa la war a dem sans si denc ginnaaw ci avion bi defar mu war a salon bi bu tukkee. ñu wàcce waat ko démonté yooyu monté waat waa passager yi muy dem loolu ñi ko gën a développé gis nga ko Royal Air ma oto yi milliards yi milliards la yor kon moom moo gën a xañ Sénégalais yi liggéey ndax xaalis booba ak loolu muy conseillé am na fu mu xajoon waaye moom ci jëmmi boppam xamut loolu nguur a ko fi bàyyi ginnaaw nguur a ko fi bàyyi nag na Sénégalais yëpp xam ne nguur a ko fi bàyyi ñu jéem koo folli xool keneen koo xam ne man nañ koo fal buñ ko may daal 23e buñ ko may daal incha allah troisième mandat ndax 23 juin bii ñuy wax barki réew mu jàll. ñu naan euh, bi ñuy xeex bokk na ci troisième manda moom fa la toogoon fekkee na ko man ma fekkee ko maa ngi moom bokk fu mu toogoon moom président 23 juin bi amoon maa nga toog ci rond point bi ñu toog ci monument bi man ak moom ak Dansokho dem si yàlla si Abdoulaye Bathily Moustapha Niass Cheikh Bamba Dièye bi muy takk boppam ñoo ngi toog nii ma dend ak prési ma dend ak moom mii di président tey moom Macky ak ñoom Moustapha Niass ak Dansokho ñoom ñëpp toog. maa ngi fàttali ko Aïssata Sall Sall mii ñu def ministre des affaires étrangères mi ngi toog waaye gis euh, yàgg nañ fa ba moom sax daa sonn ndax bii fi jeexee bi muy dem maa ngi ko gis mu taxaw ci balcon di tàllal loxo loolu fàttewu ma ko ñu daj fa ay coono yoo xam ne bañoon troisième mandat am moo taxoon kon nag bu bëggee troisième mandat loola du sop du du sotti loolu moom na ko xam dinañ ci ànd ak moom xeex ci bu baax a baax a baax a baax ne bu bëggee troisième mandat du sotti Mansour Faye milliards yi ñu ko joxoon ngir mu séddale ko ci corona bi ceeb beeg pasta beeg diw gi amut suivi léeru ak yeneen ak yeneen yu ñu koy jiiñ bërki mu la ab goroom génn muy Adama Faye xawma ko mais ku ma neex la ndax lim nekk ci biir taxu koo wax dëgg ma dégg muy wax ni ni maanaam muy wax dëgg ca waa APR kenn suñu cee gis lu dul dëgg wax ko président ndax dan naan da ngay nekk ci parti bi euh, li la neex nga nga boole koog li la naqari loolu ay kilifay kilifaa ma ko wax li la boole li la neex nga boole ko la naqari muñ loolu dafa war a jeex ñuy wax président dëgg réew mi soppi ko mbirum nervi yi moom damay damay damay massawu coono suñu armée bi jiital ko jiital ci nag gendarme gendarme yi ndax ku ne xam nañ seenu liggéey ku ne xam na seen diplomatie ku ne xam seen xereñ gendarme mu Sénégal Sénégal nag bu amee valeur du ko xam ba saay-saay bi sax dañ naan ko duggal ci ñii di jàmbaar yàqal leen ngir seenub der mën a yàqu ca loolu intérêt da koy waral muy nervi gendarme yi di def liggéey bu am solo ci réew mi di jàmbaar yoo xam ne kenn mësu leen a yab jamonoy nervi yi général Faye mii ñu dàq général Fall mi ñu dàq ngir wàllum defe naa di wax ci lim xalaat ci wàllum nervi yi niñ jaxasee réew mi loolu ñu dàq ko ci loolu day yàq ñi nga xam ne ay waxkati dëgg lañ ñiy waxkati dëgg sax loolu mënuñu ko président mënu leen a xoxotal ba ba duñ wax dëgg waaye am na ci ñoo xam ne dañuy yàq loolu nag na sàndarma xam na sàndarma yi xam seen bopp xam ñi yàq ñu dénoncé leen ñu génne leen ci police bi nag moom waxuma ay waxam ay jàmbaar lañu waaye bëri nañuy faay lool ñoom it dañoo bëri ñu leen di yàqal lool ca bëri nañuy góor bëri jàmbar bëri ay jullit bëri ay chrétien ak ñoo xam ne ñëpp yeneen diine lañ bokk waaye respecté seen diine seen religieux respecté it sénégalais yi di rafetal ñoom policiers yi waaye li ci ëpp it ci ñoom am nag ñoo xam ne dañuy yàq ñu ñoom daanaka ñoom lañ gën a xamee nervi yi ñoo ànd ak nervi yi gendarme yi dinañ ànd ak nervi yi waaye police yi dañuy ànd ak nervi yi ñuy duman yi ñuy ñuy xool ca loolu day yàq it seen image te nervi yi ñu xam seen bopp ponkal mu topp géej gi ñu lay fay 20 000 francs nga war a dundal say waajur war a bokk ci population bi amal réew mi njariñ war a dimbali jeunes yi bokk ci jeunes yi nga xam ne dem ci géej gi ak taxawaalu ak ñu lay jox vingt mille nga ànd ak président cortège am bi di di toroxal Sénégalais yi comme ñoom loolu ak comme ñun comme ñoom loolu ak ñàkk jom la nervi yi nañ xam seen bopp. di waxit li fi jotoon a jaar di ci dikkaat mooy euh, problème mu yi fi jàll yi fan yi jàll liñ toj bëri na nañuy xeexee neneen lu dul toj ak jël fi jàmbur loolu dafa doy waar ndax loolu moom sàcc la ca dafa xaram nañuy wax. dëgg cay génn ci patriote gis nga euh, maa ngi euh, kii euh, Guy Marius Sagna ak Barthélémy Dias ak xeeti booy yooyu ñooñu ay ay ay patriote lañ am na ci nag ay mbese mbese ki tappalekat yoo xam ne ay mafia lañ ci kaw di wax ci suuf waaye ñee ay patriote lañ duma ma tudd ca ju ñoom dong am na fi ñeneen Sonko it na gën a encadrer boppam ca erreur bii bañ koo dalati cam liggéey ak opposant bi ba liñ bëgg ñu am ko ndax bu ko bu ko leeree ne mënut a réew mi moom dong moom na ko xam kenn mësu ko fee def donte nag rampe na ba egg si fii bëri jeunes yu ko gëm lool muy phénomène boo xam ni kenn mësu koo gis nañ gëm ne ñoo ñooñee ànd ak moom li ñuy bëri bëri di sénégalais am na ñoo xam ne réew mu jaar yoon a tax ñuy voté ñu ànd ak opposant bi liggéey lu leen fi jëlee ca wàññi coow li cay demeek respect ndax man.